mbokk internetu Dakar live TV dal leen ak jàmm ci xabaaru bés bi ñu àddoog yéen jëm rek ci kaw kawteef bu nu daal di nemmeeku. ginnaaw nag moom actrice bile di na nekkoon ci série Nafi Marodi TV def production ba moom daal la benn page Facebook buy wuyoo leen ne tuuti daal di xëyee tey. la mu xëyee nag ci moom mile di na bokk ci daal dafa daal di am jëkkër am far du samay kàddu bile page Facebook di lee neen tuuti moo daal di bind li ni mel ginnaaw nag bi ñu bindee boobule post ba noppi bëri nag ay commentaire lool yi nga xam ne dañoo daal di wax ci boobule mbir bi loolu weesoo ab ab euh, ami d'enfance su euh, jëkkër ji di wuyoo ci turu Alimatu Ndaw daal di dugg nag def ab commentaire daal di wax ni euh, ginnaaw nag ami d'enfance su jëkkëram jile di wuyoo ci turu Alimatu Ndaw ba mu gisee boobule post dafa daal di dugg def ab commentaire daal di wax ni rek kii dafa daal di ñàkk jom rëcc na ba am jëkkër moo tax mu war toog comme ay nawleem man daal dama gëm sama aawa yaay bi demul dikkul fonk na sëyam ginnaaw loole nag Euh, ba Soukeyna euh, gisee euh, yooyu le commentaire mu daal di koy naqari lool moom ak borom këram mi ngi wuyoo nag ci turu Lamine Ndaw Lamine Ndaw nag ñu ràññee ko bu baax a baax mu di ab transitaire bu mag ci réew bu Sénégal bëri ay artistes yu nga xamante ni dafay dem ak ñoom di dikkalante te itam di leen jàppale bu baax a baax ci lépp lu nga xamante ni dañu koy soxla moom itam mbir mi daal di koy naqari loolu ba tax na itam moom Soukeyna mu daal di def ab plainte ca police bu Jëppal ginnaaw nag bi mu defee euh, plainte bi ba noppi moom mile di Alimatu Ndaw dafa daal di dem euh, wuyu ji euh, ba mu wuyu jee nag dañu ko fa daal di am na fa ñaari fanu yàlla ma nga rek ca police bu jëppal gannaaw loolee nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay xaritam ñoom itam delluwaat nañu ci boobu le di wax yeneen i kàddu waaye daal ki nga xamante ni moom moo di na la mu bëgg rek moo di mu daal di koy baalu te itam teggi tuuma yi nga xam ne Euh, teg na ko ci kawam waaye daal lu ci mënti am jamono jii moom Alimatu Ndaw euh, ma nga ca euh, loxol yoon